parce que responsable APR Touba Janatul Mahwa li ko sabab moy dëkk Touba am lo xamni tele nañu ko ndax suñu maté wu ko ci ñu xalaat ni buñu yëngëw ci politique jappalé ñi nga xamni ci si ñoy autorité étatique yi danañu si mën a pour li ñu mënul defal dëkk bi ñom ñu mën ko def lolu bokku ci li ñu ak am une famille buy def politique xam nga partie parti démocratique sénégalais dañ fi nekkoon daanaka ñun ñëpp dëkk Touba ñu néew ci nekkul woon di yëngatu di góor góorlu xëy na boobu lañ gën a nekk ndaw di ñafe ba yàlla jox ñu fa tur jox ñu fa ay responsabilité mais mbirit bu fekkee da ngay liggéey ci ñi ngay liggéeyal taxul ñu ràññee la taxul ñu xam la day laaj nga def ab taxaw seetlu. loolu mooy sababu bi ñu sonnee ci parti boobu ba am fa ay responsabilité jël fa ay engagement di ko respecté ñu gis ni ñi nga xam ne ñoom lañ ko defal sentiru ñi ñu ngi leen defal dara la ñu taxaw wutiwaat feneen fi ñu dugg loolu moo ñu fa jëlee mais du leneen. en fait xam nga Cheikh Abdou Bali dafa nekkoon benn choix boo xam ne si nii peut-être à 100 pour cent du ñëpp ñoo ci àndoon man j'assume mes responsabilités bu fekkoon ni dañ may choisir loolu duma ma choisir Cheikh

mais bu ñu ko indilee tegal ñu ko nit ñu moo leen fi teg ndax amoon na crédibilité wu gagné dëgg la naam xëy na façon de faire bi moom moo xaw a am tuuti ay erreur rek mais waroon na mën a gagné moo tax ñu jàppale ko suñu corps et am pour maanaam mu mën a gagné mais yàlla dogalu ko du Cheikh Abdou lañ jàppale mais parti bi soo parti bi lañ respecté. en fait Pathé Diakhaté bon xam nga loolu man dama tourné woon sax page bi maanaam rapprochement bi. du lu bari du jege jege politique la won rek dama nekkoon PDS mu nekk PDS ñuy and di liggéey di liggéey ba mu PDS ñu aper bi fa jógee it dajanteeg man manit sama matal ma matal fofu la ma fa don def mu woma ñu waxtaan bi ma man nangul ko li ñu waxtaan sans condition mm, xeyna na dem na ba saytaane duguna na suñu digënté wala ni ma bëgg jappé man duma nit kuy doxé non ndax man bu may politique dama am ay opinion ak ay idée dama koy wax loolu ku bañ ma ànd ak yow si noonu xëy na du ñu mën a ànd loolu mooy suñu problème mais c'est un oncle à moi ma koy saluer au passage loolu rek mais du leneen amuñu benn jegewe wala sorewe goo xam ci man sentir naa ko ci diggante bi seulement politique nag àndatuñ ci ndax dama am ay principe mu am ay principe am il respecte ses principes ma respecte sama yos bu jeex. man bilan ay bilan def bilan xam nga bilan dañ ko war a def ci ay élection bu ñu demee élection législative législature bi def bilan wala ñu def élection présidentielle pouvoir exécutif bi def bilan man loolu laa gëm loolu laa jàpp ci loolu laay dox man avant que may wax ak bilan wu président Sall ak bilan wu législature bi yooyu yëpp damay bàyyi ba ñu dem ci ay élection sénégalais ñi ngi fi ñoom ñooy natt nattukaay gi mooy nattu nattukaay googu mooy nattukaay gu wér sénégalais ils sont conscients am nañu seen conscience bu tranquille que ni bu président Sall présenté wul bilan bu baax duñu dem di ànd ak mom te gëm naa ni am bilan bu mu mën présenter présenté Sénégal yi pendant les 5 dernières années mu géré réew mi kon nañu bàyyi ba fi ak 2019 ñew ñu doog xol bilan bu ñuy présenter Sénégal yi ñu bilan bu ñu présenter jërul yàkkamti ak précipité nañ bàyyi ba 2019 ñu présenter bilan bi ñu am ak li ñu def ci réew mi Sénégalais yi bu ko défé bu boba dañu mëna am deuxième mandat man duma def ay commentaire ci ay bilan yo xam ci ni 6 mois la 5 mois ndax 6 mois dafa.

budget bu commune bu conseil mais dafa am il faut que nous soyons. xel conseil conseil nga salle de délibération def amendement et tout wax ni un budget de tant de milliards et si ñu ba année bi wala <coughs> milliards wala un milliard 500 millions loolu j'aurais préféré si c'était le maire ou conseiller nañu même budget bi mu yéeg kawe nek 6 milliards ou 4 milliards wala 3 milliards amul sens li am sens mooy li ñu mën a am man ci liggéey nañuy wax sénégalais yi wala population Touba bi li nga xam ni moom lañ mën a am wax leen ci mën def mais bu ñu présenté benn budget boo xam ci dañ naan budget bi 4 milliards la te au final nous am 2 milliards loolu ça n'a pas de sens dafay créer ay euh, problème problème yi muy créé mooy boo nee am naa 4 milliards 500 millions wala nga am naa 5 milliards te au finish doo génn doo mën a récolter lu mat 2 milliards chantier yu bari yi nga xam ci ni war nga ko entamer doo ko def ni ñu gis ni yaa ngi def te yaa ngi lim xaalis bu bari ni am nga ko loolu daf lay jaxase ak peuple bi man j'aurais préféré ñuy wax exactement nit ñi li ñu am xam nañ budget daaw bi ni mu toll bi ñu dajalee seen i kook natt ko ba pare dem nañ trésor xam nañ nañu référé wu ba ci ci budget boobu wala bu ñu loo xam ne jàpp nañu loolu danañ ko mën a aussi damay attirer attention maire bi pour ñu bàyyi ko xel ndax maanaam dañuy gëmloo nit ñi ni am nañ 4 milliards amul trésor buñ seen recette yëpp bu ñu ko dajalee boo demee trésor du ñu fa am 2 milliards ca loolu ay attentes yu bari yu yu lay xar yu lay xar la am naa 5 milliards am naa 4 milliards fekk nit ñi di def seen yaakaar ci ni am na nangam ak nangam war na am nangam ak nangam ca doo ko mën a satisfaire loolu daf lay mettre en mal avec la le la population de Touba. kon na maire bi di ci bàyyi xel bu baax ak ay collaborateurs am loolu laa ci am lu may wax et puis hum, maire Touba vraiment statut spécial bi mi ngi dox gaa mais xam nga maire. dafa am lu bëree bëree bëri loo moom moo ko war a saytu ca bu ko saytuwul rek pour mu am xaalis du yóbbu man dafa am yoon du ànduma ci gis nga lu mel ni maanaam marché Ocass centre hmm, commercial yi benn centre du fay ay taxes dëkk bi lu bare bare bare dafa war di génne am na yeneen yoo xam ne si ni ay recette la war a mën a génne ca du ko génne yooyu dañ ci war a dox bàyyi maire bi ay responsabilité ay prérogatives am yi nga moom la war a accomplir mu accomplir ko mais marché yi ñii yor ko. Hmm, suuf si ñi yor ko leneen ña yor ko leneen ña yor ko loolu du tax maire bi am maire maire bi am doole pour maire bi am doole dañuy fal maire bi mu jox ko lépp mu gérer lépp fu recette mën a war a mën a génne ñu dem fa mu génne ko fa mais bu fekkee nañu wut ay intermédiaire ci diggante bi yoo xam ci ne ay hiérarchie lañu wala ay chef coutumier yooyu day yàq ndax bu boobaa ñoom ñooy dox diggante maire bi ak peuple bi te loolu mooy li am présentement am marché Ocass jël kilifa teg ko fa kilifa ga dox diggante maire bi ak marché bi di dem wax ak waa maire bi ñëw wax ak waa marché bi léeg-léeg mu xuloo waa marché bi léeg-léeg mu xuloo waa maire bi yooyu amul benn sens nañ bàyyi maire bi ak marché bi ñu liggéey direct guerpissement bi man li ma ci gis mooy damaa jàpp ni avant ñu koy def waxtaan bi dafa maanaam sareet da du jutoo fas man bu fekkoon ni damay conseil ñi nga xam ñooy déguerpirlu ànd naa ci de mais bu ma doon conseil ñiy def déguerpissement bi dama leen di wax à ce ñu waxtaan ak askan wi ba pare jox leen benn délai bu gën a yaatu bu ñu leen jox et et ñu bañ koo maanaam ñu yemale ko maasale déguerpir lépp bu ñu see déguerpir ku nekk ci mbedd lañ wax xam nga Touba mbedd yi sakk bari na am na mbedd yoo xam ci ay kër ñoo leen sakk kër dëkk ci mbedd tabax fa kër am na fi ampagaay li may wax maanaam lu ma xam la am na fi plan yi plan yi boo ko tàllee ci dëkk bi plan directeur bi boo demoon Jurbel tey jii ñu jox la ko nga indi ko fi nga tàllal ko bëri na fi kër yooyu gis yoo xam ne si ni ci digg mbedd lañ nekk yii nekk ci réserve yii nekk ci espace public yii nekk ci santé yii nekk ci école yii nekk ci leneen ak leneen am na fi am pagaay dama foog ni nag bu ñu dee dëgër piir mbedd yi la ñu war a yaatal nañu xool plan teg plan interpellé ci secteur yëpp li concerné chef de village yi que ñoo yor plan yi woo police gendarmerie woo commerçant yi ñu ñëw woo maanaam kilifa yi nekk ci dëkk bi ñu daje ñu xool ñu ne lii ak lii lañ bëgg a dëgër bi génn ci nit ñi jox leen benn délai bu yaatu ñu leen disi tel na ñëpp jóg mais ay 15 jours 1 mois nga def benn déguerpissement léeg-léeg nga dem ci zone boo xam ci ni duñ jot sax benn lettre de sommation bu leen war a mën a yëkkati loolu day sonal askan wi te fii ñu fi nekk ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk lu ñuy wut pratiquement sañ ba fi indi ñëpp kon dama xalaat ni mbir mi nañ koy waxtaanee bien avant que ñu koy exécuter xam nga man loolu defoon naa ci benn sortie ci benn rajo de la place xam nga ñun waa Touba dañu am problème comme le veuille ou on a un problème j'ai entendu des députés wax lii wax la mais Touba ñi ngi fay ndox comme le veuille ou non xam nga lu la jox exemple man du ma naan lu dul ndox mu neex gis nga kër gi ñu nekk nii bu ñu xëyee dana jënd 5 bouteilles bouteille bu ne dañ ko jëndee 150 loolu ce qui fait que mi ngi nekk 750 nga koy def par jour boo calculer un mois bi dana la taxaw 17000 bu ñu doon fay ndox. xalaatuma ni dinañ am facture bu 17000 man jàpp ma loolu bu fekkoon ne dañoo fexe bàyyi ba ñu branche leen ñu am robinet ñu koy tijji di ko xelli di tëj bu weer dee ñu indil ñu facture duñ fay lu mat mille am na ñoo xam si ni danañ fay lu mat 30 nangam mille ci ndox ci jënd ndox moomu noonu ñii di fay 7000 ñii di fay kenn ku nekk ak sa kër na mu na mu day yaakaar naa bu ñu defee étude boobu c'est des centaines de millions par an des centaines la la waxal su demul milliards par an kon ñun ñi ngi fay ndox de manière. inapproprié xam nga bu fekkee ni dañuy dañoo bëgg a dañoo bëgg a fayloo nit ñi dox maanaam nañu xalaat bu baax a baax dëkk bi fa mu nekkoon démb ak barki démb ak fi mu nekk tey ab dëkk mënul am 25 cinq vingt forage ba pare di am ay problème ndox loolu c'est impossible parce que ni ñuy doxal ndox mi moo jaaduwul da ngay gis ni ko daan sëriñ bi mooy fay ndox mi benn chantier lay nekk xëcc fa ab robinet robinet bi 24 heures si 24 day xel bi maçon yi néew ci kër gi ndox mi di yàqu di tuuru te loolu ay nit ñoo koy fay moom bu ko askani fayutut waa Touba bu waa Touba fayutut sëñ bee koy fay ndox moom fu mu robinet bu kuule moom danañ ko fay kon moom sëñ bi fay wala askani fay moo fi nekk man je vois que ni fay gi ndox gi ñuy wax naan ndox mi sëñ bi da ko ñaanoon da ko def nii sëñ bi li mu ñaan day am mais dafay am loo xam ci ni maanaam cim xel lay dox dañ koy réglementariser en <laughs> origine vers xaw ma koy wooyee noonu benn kuréelu jeune la bu taxaw ay jeunes yu jàmbaar lañ parce que ab jeune aussi parti jeune moo koy animé l'animation de chaque parti politique doit être gérée par la jeunesse jeunesse bi loolu mooy seen rôle. King Kong ku mu mën a doon responsable bu mu mën a doon nga nekk ci département bi da nga leen war a teg loxo jàppale leen parce que loolu mooy doxal parti parti dañ koy animé te jeunesse bi ñoo mën a animé parti bi. dañ leen war dooleel may leen doole bu ko defee chaque mois ñu organiser benn manifestation folklorique bu rëy ci département bi ñu xam ni parti bi mi ngi yëngatu mais parti boo xam da ni parti bu nekk mm, opposition loolu man xawma ko man bi may nekk PDS daanu ma politique noonu boobu dama doon def donte opposition lañu nekkoon sax dama doon def chaque mois danañ fexe ba yëngal fii loo xam ne si nii danañ xam ni kat ñii nii maanaam te du ñuy nelaw parti noonu lay doxe yaakaar naa ni loolu jàppale leen moom moo gën di leen ci xeex quand parce que ay jeunes lañ am nañ engagement mën nañ loo xam ne responsable mënuñu ko bu leen dooleelee bon mën nañ yëngal parti bi ci département bi ca ci suñ parti am 45 ans ba pare di woote ni ay jeunes lañ waaw xam nga dafa am ñoom dañoo ñimiwul seen bopp dañoo ragal il faut dañuy bootu wala ñuy maanaam jafandu loolu mooy ñuy jafandu rek man je vois que ni boo amee 35 ans génn nga cadre jeune man je ne suis plus un jeune. gestion responsable comme tout le monde jeune yi lu def mëna ci japp donte mëna and ak ñom mais fay am lo xamni da ngay wóolu sa bop gëm sa bop nit ki nak bu fekke ni yow li ñuy wax ay institution ben nga ci mëna japp nga ni bi nga nek jité ko bo ci joggé balaa ngay ag ci mag ba day xawa metti ci wala wala ñimewoo parcours bobu tax nga bëgg a wu ci institution yu ndaw yi rek nan jeune jeune jeune jeune lolu gënut nit xar day wessu mboté day xar day wessu mboté xam nga la franc-maçonnerie moom <laughs> day mbir moom ji nga xam dafa lëmbee dafa lëmbee jamono jii ñu nekk man man Moustapha Seck en tant que tel du ma cautionner benn acte boo xam ne si ni acte franc-maçonnerie la ñu naan dañ ko def ci diine wala defuñu ko ci diine yow li ñuy wax j'ai vu des chaînes des chaînes yoo xam ne si ñu ngi ci dëkk bi maanaam man li ma jàpp ci jàpp ko bu fekkoon ni tey jii nii dama am dogal CNRA wala feneen seen yooyu li ñuy dawal dinañ ko arrêté ndax. bokk na ci li nga xam ci ñoom ñooy dugal ci bopp nit ñi la franc-maçonnerie ndax mënoo jël ay émission télévision wala ay théâtre di ko teg di ci montré nit ñi nii la franc-maçonnerie nii lañ koy defee ku bëgg bokk nii ngi def di ko jàll ci ay télé naan da ngay yéen nit ñi au contraire man dama jàpp ne dañuy influencer nit ñi wala ñuy sensibiliser nit ñi pour ñu xam yoon bi ñu bëgg a jaar man loolu laa gëm loolu nag gouvernement am na ci responsabilité wala ak CNRA gi mu dénk wàllu googu dañu a arrêter sans scène yooyu ñuy dawal seen genre théâtre yooyu une bonne fois parce que day day mbir moo xam si ni du mbir mu mbir moo xam du mbirum gone dañ ko war a dañ ko dafa am cër bu ñu war a jox askan wi ak peuple bi te du càggante ni rek dañuy bàyyi télévision yi lu leen neex ñu teg lu leen neex ñu wax lu mu neex nga publicité ko télé bi vraiment man jàpp ma ni Sénégal noonu la war a kon war nañ ci jóg liy baral lu bari yëpp yenn seen télévision yi nga xam ni lu leen neex rek la ñuy teg la loolu la du ma tudd benn télévision mais man loolu laa gis moo waral affaire franc-maçonnerie bi ni gadd ci dëkk bi parce que dañ ko gis télévision yi muy daw lool la rek xam nga aper dama japp ni manam parti bi dafa magagul wala parti bi dama xamul dafa amul njit wala dafa xamul dal man je ne sais pas xawma fans club la ndax man si c'était le président si c'était buma nekkon may secrétaire parti bi dama jël sama responsabilité dafa am lo xamni ne si nii mënul ñàkk li mënul ñak moy njit réew mi dafa am njit am ñu ci tofal ñu ci tofal ñu ci tofal kër googu dem day am njiit dëkk boo dem day am njiit parti politique bu mu mën a doon dafa war a am am ñu ci topp am ñu ci war am ku fa jiite am ñu ci topp am ñu ci topp parti bi jël ay responsabilités am envoyé xool femmes yi ñi ne si ñoo mën a jiite ñu jiital leen ñu xool jeunes yi a jiite ñu jiital leen ñu xool adultes yi ñi mën a jiite ñu jiital leen rek ñu yi mu jël bu ko defee bu ñu fiy ñëw wala bu ñuy dem danañ xam mais mënuñu yor mel yor ku yor sabar gu tas ni da ngay dem di seeti la première dame dajale lu mat fukki car fan lañ leen recevoir palais ba ci boppam salle des banquiers loolu xaju fa dem di jël ay petit palais wala nga jël ay hôtel yooyu aussi du pour c'est pas ça c'est pas ça la aussi bu ñu bëggee def une bonne politique dañuy structurer parti ba mu jaar ci aw yoon mën nañu recevoir daamu Touba yëpp yëpp yëpp du ëpp vingt personnes te ñi cause yëpp danañ ci gis seen bopp mais jël lu mat trois cent maanaam mbooloo mu amul njiit kenn mënu leen a jiite kenn mënu leen a contrôler kuwaay looy neex def looy xalaat def la man loolu laa gis loolu moo waral problème yi il faut président jël ay responsabilités am stricte de parti bi kenn ku ne mu ni mooy jaajiitu fi gémmu ni la ma jaajiitu fee bu ko defee ëllëg bu ñuy soxla ñoom danañ dem ca ka nga xam ne mënuñ jiital ni ko nangam lañ soxla ci famille lañ bëgg dem dana tànn femme yam mën a àndal ànd ak ñoom dem wala ku fi ñëwit ñu tànn ña nga xam si ñoom ñoom la war a gis mu gis lii rek mooy régler problème bi mais bu dul lii bu doon jeunes yi noonu lay demee bu dee adultes yi noonu lay demee. Touba problème mu Touba waa Touba ñoo ko mën a régler il faut que ñu gëm ni ñun même cérémonie officielle yi ñuy def mën nañu détacher benn personalité ici à Touba benn kenn nit koo xam ne si ni dana mën a assumé reste ay responsabilité mën a porté parole président bi mën a porté parole gouvernement bi ci dëkk ci dëkk bi mais ñun amul lu ñu dul importer lépp tout cérémonie officielle dañuy jëlee nit ca beneen dëkk indi ko fi buñ ñuy bunyi buñ ñuy arrangé dañuy jël keneen indi ñu ko mel ni ñu amuñu maturité wu mëna gérer dara mais loolu il faut ñu jox ci ñunit il faut ñu gëm xamal parti politique bi ñu nekk nii mën nañu gérer suñu bopp suñu yëf te et puis la gis rek xam nga du dara man parti politique lay def politique bi may def nak du naqari deret wala maanaam gëm sa l'essentiel gëm naa sama bopp li ma gëm mooy mbolo moy dole lima gëm moy basse politique mo am solo mais pas di tank top ci ginaaw massa mbolo mu dem ba pour mu borel ak président man dama gëm ni parti politique ku ci nek da nga wara prouver lutax ngay yalla man loolu la gëm d'abord raison pour laquelle nga bir ci kenn nan ko li wala la damay nek ci terrain bi di liggey bañu gis ni man mi ma ngi liggey ñu ñew ni ma ya ngi liggey wa gor am li man loolu la gëm mais goma dem di and ak am seigne mbacke jeng mu may yobbu ci président wala mu may yobbu ci marem nan ma li wala la limay def ci terrain bi dañ ko def bu fekke ni man limay def amna résultat même buñ ma yobul ci président man na am résultat bu day ni man na def sama yefi bop yo xamni ne di sibir dara ma yóbbu fa bëgg dem man loolu gëm man goma ni manam parti politique mom dañ la wara japp yobul ci ni rek pour présenter la ko nga jall man dama gëm da nga wara liggéey ba am li nga am ci base bi man loolu gëm motax duma duma nangu di rancé wu ci ginnaaw kenn wala kenn di ko lolo di sante bu baakha baax di sante Mouride info bu baakha baakha baax baax li ñu def c'est une belle initiative lu baax la parce que au moins dina permettre ñu wax suñuy soxla nit ñi di ko dégg et démb ak barki démb doon nañu gis pratiquement ñi ñu ko doon defal xëy na ñoom ñoo ñu ëpp grand ëpp ñu personnalité mais média du doxee noonu dafay seet ni rek fii war na fa mën a jëlee information mu dem wuti ko fa ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax te di leen ñaanal jàmm di ñaanal la xalif général de murit mu yàgg fi sañ mun Muntaxa suñu borom wéral ko te yan bi oyof toy ci moom.